lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di ñoo ngi leen bu baax rawatina yéen murid yi. am na loo xamee ne mi ngi raam jëm ci ñag bi te buñ ko wut teel sa freiné dina fi indi ay jafe-jafe yoonu murit ci dal yar ak taalibe bi ci lañ ko xam Sëñ Tuubaa nekk na fi ba jóge fi kenn mës a dégg jigéen bu mu fi seexal kon ay nit ñoo xam ne buñ taxawee ne dañ leen seexal ay góor du jëbri ci ñoom di leen jox loxo te lislaam am ne képp ku jox jigéen loxo da war a dagg loxo ba loolu ñooñu ci caaxaan lañ nekk yoonu murit yoonu sëñ Tuubaa dafa daj du ne ngir lislaam kon képp koo xamante ne war ngaa mën a taxaw jàppalewoo ko te loolu ñun dañ cee taxaw xarit suñu tànn tubay sëñ mu taxaa nag def na li war a def lim digle lépp mooy lu yàlla digle ak yónnate rek sëñ Tuubaa ci la nekk lim fi tere lépp képp dégg na ko waaye ay soxna yoo xamante nee nañ yéeyaay ay seex lan def ay sëfa naturel ay poos ay xef yu kenn xamul yoo xamante ne ah ay jigéen ak i góor ñëw seen kanam di sukk naan yaay suñu sëriñ loolu ay caaxaan la yoonu murit yoonu jëf jël la yoonu lu baax la waaye nag duñ nungu kenn koo xam day jóge ci àll ba di gàttal yoonu murit yoonu murit tey ku ko yeb rek ci façon doxin yéen ñoo xamante ne ñoo yor yoonu murit di dox nañ bàyyi seen caaxaan yi ñun nag suñu kur lañ yor rek képp ku ci bayut yooyu dinañ di jëflante ak yow amuñu caaxaan wasalaamaaleykum